asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi si ndigalu Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides na fi yàgg lool te ànd waa daayira Miftaaxul Munaa Wusool boole mbooleem takkatu rajo yi képp ku yëngu si wàllub sonorisation yi si Touba ak si mboolem Sénégal wërngal këpp ñoo leen di yéegal bés bi ñuy amal di bésub sant ak delloo njukkal Serigne Touba Xadimu Rasoul mu ngi yemook alxames le 9 mai 2024 ma ngi xewe ca bayaalu gaaru bu mag ba ñun nag bés bi ñu ngi ko dara jaale Serigne Amsatou Mbacke jaali batu waaye nag ñu ngi ko duppee ma Massamba Loum borom léppay baax ñu ni bés bi mbokk yi ñu ngi koy yëgal mboolem njabootu sëriñ Touba gi fàttewu ñu kenn bàyyiwu ñenn ñu ngi koy yëgal sëriñ Amdi Modou Mende Fall xalif général des Baye Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall képp sëriñ Mbacke Daba Sarr mi kilifay gox bi ñu ngi ko koy yëgal monsieur le sous-préfet de Ndam monsieur le maire de Touba Abdoul Ahad Ka mbooleem daaray alquran yi nekk Touba ak sëriñ daara yëpp fàttewu ñu leen mbooleem jàngkatu xasida yëpp si turu waa daayira Mawaahibu Naafir mbooleem druskat yi mbokk yi bis bi nag ñu ne ñu ngi si woo mbooleem technicien yëpp animateur yëpp mbokk jullit yëpp képp ku yeewoo Touba fàttewu ñu la ñu fas yéene ko amal nag si programme bu am solo 8 heures jàpp 13 heures dinañu amal jàngub alquranul karim amal drus ak xasida 13 heures jàpp 15 heures ñu amal Bilbao ñu ne ba tey si programme bi dinañu nag fas yéene fanaane guddi gi ànd seeg nag mbooleem jàngkat xasida mbokk yi bés bi dinañ si fas yéene nag rendre hommage mbooleem ñi bokk doon liggéey bi ñu jiitu ji di fàttali nag ma ngay am ca gaar bu mag ca bayal ba le 9 mai lay doon fàttewuñu kenn ñu ni bàyyiwu ñenn ñu ngi si woo ñëpp